nga xamante ne at yi yëpp moo ñuy jiite si barabu ñu ngi nuyu nuyu bu tedd son excellence le président Macky moo ñu yebal tey daaw yu ñu ngi taxawoon fii indi message am suñu borom jàppale ñu ba ñu teewaat fi tey toujours si ndigalam ñu ànd ak délégation bu am solo ki moo amoon kaddu gi d'ailleurs tey waroon taxaw fii wax mais mbaaxam ak humilité tax mu ne ma demal jël kaddu gi mooy ministre d'État Mbaye Ndiaye moo ñu magal ànd ak ñun bàyyi ma ma jël kaddu gi wax message au président de la république ñu ànd ak euh, député Aline Badara président commission défense assemblée nationale ànd ak l'honorable député Awa Niang questeur à l'Assemblée nationale ànd ak euh, honorable Mbadio Diakhasso au conseil de collectivités territoriales man nañu wax ne suñu rakk suñu xarit monsieur le maire Moussa bi wax sànq mën nañ ko sax boole suñu délégation parce que mook ñun benn la président nag yóbbanteem mën naa wax ne dama koy jottali suñu xarit koo xamante ne kenn la si président mooy Cheikh Matar Cheikh Matar président mi ngi nuyu waa kuréel gi bu baax a baax a baax a baax di leen wax ne mi ngi feddali kóllëre ak yéen message yu daawam bi yaakaar naa ne dégg nañ ko bu baax te li ngeen di def ci xale yi di ko def ci diine ji gis na ko bu baax a baax parce que loolu bu ngeen ko defee réew mi ngeen jàppale parce que képp ku taxaw si xale yi rek di leen jàppale président de la république amal na la njukkeel kon président mi ngi leen di féetali kóllëreem di tàllal loxoom pour que ñu ñaanal réew mi ñaan fi jàmm ñaan fi naataange ñaan aussi nawet bu barkeel may terminer nag di nuyu sama cousin sama xarit koo xamante ne ñoo bokk mbex mi muy Cheikh euh, Mansour Diouf Cheikh Mansour maa ngi lay nuyu bu baax bu ma la fekkee si barab bu tedd bi même bu fekkente ne président moom ma yebal xam naa ne man maay maire Yoff te xam naa li liggéey si Yoff li liggéey si Wakaam li ngay liggéey si Ngor li liggéey si Tunda bi yëpp loolu yëpp koy defal sëñ Touba bon nag loolu laa ne woon danaa ko si wax encore une fois di ñaan suñu borom mu yóbbu ñu si bés bu tedd bi xamante ne ñëpp moom la ñuy xaar mooy bésu Masaalikul Jinaan yàlla nañ ko yóbbu ak jàmm ñun ñëpp ñu taxaw fa si barke Sëñ Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg a dee ak tàngaay fii nii. waaw. monsieur Ba nanga nga def. metti na. xam naa da nga sonn. loolu moo tax nag ma indil la verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. verre bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment du mos sa tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. voilà. verre bii nag moo la sonal. verre bii moom moo nekk sama bâtiment bi yëpp. tollu day lëndam. dafay tàng. te mhm. am nañ climatisation mais ça ne va pas ba tey doxul. mais loolu. léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère. soxlaa wutul génn réew mi. di wuti matériel. lépp nga fa. HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15.